waaw donc euh, Der maa ngi kontaan trop ci reprendre affaire yi. di nuyu waa Orléans Kurum. <laughs> sama ay sama benn tonton bu tudd Pape Birahim seen xarit la nee na ma des fois ñu dóor ñu ay xeer yu saf sàpp mais ñuy ay groupe d'intellectuels think tank buy xalaat di leen nuyu bu baax jaa ngeen jëf waa Orléans Crew Der man 100 jours yi ma je suis parfaitement d'accord ci li wax ni 100 jours def ci bilan ci 100 jours mënul nekk man dama jàpp ni lan moo mën a am ci 100 jours mooy ñu xàmmee ci biir 100 jours yi bi ñu jël fi ñu jëm loolu lañu mën a am pour man ci 100 jours ndax dafa am. loo xamante ni man moom laa doon xaar ci 100 jours yi te ñaar yooyu moo permettre man ma réer ci 100 jours yi dafa am programme wala loo xam ne dañ ko tuddee projet loo xamante ni ci ñoom ni ñu bëgg a doxale Sénégal foofu lay tënku loolu lañ ni ñu pareegul mu am discours déclaration politique générale bu premier ministre du Sénégal nga xam ni bu ñëwoon assemblée nationale danaan leen la vision du président de la république nii la tëroo nii ak nii laa koy doxale déclaration de politique générale boobu amul donc projet bi pareegul déclaration de politique générale bi amul kon fan la ñu jëm man xamaguma ko pour man ku wéetul waxtaan ak Diomaye wala waxtaan ak Sonko da ngaa am fit rek mais xamagoo fi ñu jëm ndax ñaar moo gën a mën a tënku pour ñu comprendre mooy benn bi mooy programme maanaam li tax ñu fal leen te nee nañ projet bi pareegul ñu ngi koy tënk peut-être d'ici deux mois wala trois mois ñu jox ñu ko déclaration de politique générale député bi xam na ni ci lañ leen di wax ni li fi ñu bëgg a jëm ak niñ fay demee nii lañ koy defee ñaar yooyu benn amagul bii pareegul bii amul kon xamaguma man fu ñu jëm loolu ci 100 jours yi man loolu laa bëggoon gis mooy cap bi et la vision fan la ñu jëm bu loolu amul nag feey amagum rek la ñu mën a analyser mm-hmm. je ne suis pas d'accord ci li ma dégg léegi ñu ni nañu bàyyi un an deux ans non Ousmane Sonko dafa indi rupture le proposer mu ni sénégalais yi boo leen falatee nit amul ay temps de grâce topp leen ko tànk ak tànk waxi Ousmane Sonko la. Mm. du seeni wax yéen moo compté. Mm. waxu ki jeune bi jeune bi voté wóolu wala mag mi voté wóolu kooku moo compté. Mm. kooku nag. moo ni boo falee nit topp ko tànk tànk amul délai de grâce léegi nag mu am ay fee yu am ci biir fee yooyu man dama ci gis de bons points gis ci de mauvais point par exemple man lu mel ne la diplomatie ma gis la président Diomaye fay ñëw depuis ci campagne bi mu ni moom la président Diomaye du génn fi nga xamante ni mooy waruñu génn CEDEAO dafa bëgg ñi fa génnoon sax ñu xool lu ñu waxtaan ak ñoom ba dugal leen te changer ni CEDEAO doon doxe continuité diplomatique boobu ak apport yi am par rapport ak mu changer ak li muy régle ci Afrique man dama jàpp ni loolu lu baax la dama jàpp ni ni mu egsee bees CEDEAO mission wu luy jubóole yeneeni frair yoo xam ni gedd nañu ñu war leen indiwaat bu yor mission bi dama jàpp ni loolu lu baax la xam nga loolu diplomatie la dëkk bii dafa am ay kënu yoo xam ne man dama yàgg a toog fii même quand c'était impopulaire ma koy défendre muy suñu xalif généraux yi kër diine yi ma jàpp ni dafa am cër bu am solo bu ñu toogee ñoom ci dëkk bi bi Pastef di falu wax bi bari na torop am ñoo xamante ni sax peut-être gisee nañ ko neneen le président Diomaye fay dem ba ci sëriñ Mountakha Mbacké dem ba ci sëñ Babacar Sy Mansour bi mu eggee ci sëñ Mountakha ni ko waxuma la président bi mais sa doom bi moo la ziyaar si walla sa taalibe bi demaat Tiwaawoon wax lu mel noonu mm-hmm. ma jàpp ni loolu am na lu muy cimenté am na lu muy defar mm-hmm. loolu man jàpp naa ni du lu ndaw lu baax la ci am réew mm-hmm. ci stabilité aussi dëkk ni ma gisee ay bon point parce que am na yoo xam ni comme sur l'enseignement supérieur li nga wax nii léegi Abdourahmane Diouf nekk en contact direct avec les étudiants les acteurs di leen fekki fu nekk mu dem fa loolu seetlu naa ko pour man yooyu c'est de bons points mm-hmm. noonu laa gisee de mauvais point yoo xamante ni fii ñu toll lañ ciy teg baaraam à partir de maintenant man pour man par exemple nous avons un premier ministre très bavard très bavard cent jours sans var moi je trouve que le premier ministre son ko est très bavard cent jours sans var la primature poste bi pour man poste de résultat la du poste d'exhibition la primature c'est un poste la boo xam ne post de résultat la du poste d'exhibition donc man je pense que Ousmane Sonko fi ñu nii le temps de la parole opposition bi moo ko moom le temps du travail la yor et de l'action moom tey il faut mu arrêter d'être un opposant au pouvoir mu quitter posture opposant bi exercer l'état et la plénitude fonction plénitude fonction moo lay tere nga naan tapis rouge bi dama ciy dox ba mu neex ma yooyu c'est élémentaire c'est pas pour kilifa Ousmane Sonko doit être ci temps wu travail bi bàyyeeg opposition bi le temps de la parole li mu amoon démb minute bu nekk mu génn wax moment bi le c'est le temps de l'action mm-hmm. maanaam tu as parlé de la concorde et de l'exercice c'est pas la même chose mm-hmm. dafay changer carrément de paradigme mm-hmm. na bàyyi wax ji te ne ci jëf ji képp ku mu jàpp ni da ngaa sàcc ñu am ci preuve nañ la teg ci yoon képp ku ñu jàpp ni defoon nga lu dul noonu nañ la teg ci yoon mais nañu wàññi wax ji te ne ci jëf ji ni ma constaté noonu point boobu muy point bu ma jàpp ni baaxul noonu laa constaté di le reniement waxoon naa ko fii dama gëm ni boo ne appel à candidature ngay def ñëw nommé presque poste DG yu bari te defuloo appel à candidature wor nga la nga waxoon ndax am na koo xam ne bu doon benn am na ay diplomam am expérience moom dafay yaakaaroon rek ni danañ teg poste yi mu ñëw compétir ci bu fekkee temps mayu la ko woon nga proposer nit ñi wax leen nii laa ko bëgg a defee après même ñi ma fal mën nañ leen yóbbuwaat ci loolu ñu comprendre donc pour man sur le reniement ci appel à candidature bi loolu baaxul ma jàpp peneen affaire mooy loo xamante ni tamit dama jàpp ni il faut mu mu mu leer ci bëtu sénégalais yi mooy les champs yoon bi nga xam ni prérogative yi président de la république la ak yi nga xamante ni c'est ki nga xamante ni mooy le premier ministre pour que nit ñi am ci visibilité ak lisibilité mu leer mu bañ a am confusion de rôle ci ni ñuy exercer état bu Sénégal le président de la République exercer pleinement exercer la plénitude de sa fonction même les petits détails sur le protocole l'état état mythe la moi je suis régisseur général pourquoi ñu lay wax nii la ñu lale tapis rouge bi nii lañ ci war a doxee président ciy dox diw nii lay féete diw nii lay féete loolu état dafa am loo xamante ni protocole bi ci mitu état la bokk donc damay dox ci tapis bi ba mu neex yooyu c'est désacraliser yoo xamante ni dafay bokk ci lii dooleel l'institution du président de la République donc mu war a la plénitude de sa fonction beneen bi nga xam ni aussi jàpp naa ni point bu baaxul la mooy manque de coordination dans l'action gouvernementale ci benn aspect bu ma dégg Ousmane ko wax mooy déguerpissement bii di am yëguma ko woon loolu ce ministre de l'intérieur mënul def communiqué wala circulaire boo xam ni mooy def moo santa mooy mooy accompagner loolu nga ñëw ni yëgoo ko woon loolu dafay wane benn manque de coordination dans l'action gouvernementale loolu pour man baaxul ci point yi baaxul la bokk ndax ku xam l'état xam ni mu structuré xam ni le renseignement militaire li ci ëpp ci président la jëm xam ni le renseignement wu palais li ci ëpp ci président la jëm waaye xam ni le renseignement BMS ak yeneen ak yeneen yoo xam ni c'est le ministre de l'intérieur c'est directement avec le premier ministre donc tey bu ñuy wax croix de transmission bi war a am entre ministères yi PM mint bi la war a gën a amal sax coordination par rapport ak lépp luy xew donc noonu laa ko man gisee muy bi jiitu projet bi dañ pareegul déclaration de politique générale bi amul donc man vision bi ci ñaar yooyu dégluwoon woon Ousmane Sonko mu wax ñu la vision du président ci DPG bi. Mm. wan ñu num ciy demee. doon na ma wan fi ñu jëm. Mm. projet bi pare carrément danañu wan ni ñuy doxe parce que tey à ce jour est-ce que le PSE du moom la ñu nekk ba tey di doxal wóoruma mais c'est parce que. projet bi comme pareegul DPG bi amul fi ñu jëm man ci 100 jours yi cap boobu laa soxla woon. léegi nag point yu baax yaa ngi fi point yu bon yaa ngi fi il suffit wàññi lépp loo jàpp ni lu bon la yokk loo xam ni lépp lu baax la sànq nag j'ai parlé de la diplomatie ma gis des frères pseudo panafricains qui attaquent tout le temps le Sénégal. ma gis ay sites yoo xamante ni bëgguma sax tuuti seen tour mais camerounais eh, yow yoo xamante ni sa président def na trente et quelques nga jël suñu président di ko saaga guddi ak bëccëg quoi di traiter Sénégal de traître tout le temps ou yow Blaise Compaoré def na ci yow vingt huit ans nga ni lee Sénégalais c'est des traîtres te ñu ñu jóge nii nii nii nii ci alternance hmm. ces panafricains la nañu yem le Sénégal dafa am rôle ci Afrique ak ci àdduna am ci leadership am ci leadership li ñu jox jomaay ni ko demal négocier jomaay da ko fee fekk gën koo continuer mooy cër boobu c'est pas ces panafricains là qui diront aux Sénégalais nan la ñuy doxalee seen diplomatie heureusement que li ma dégg jomaay wax ko ci diplomasi avant sax muy falu moom la assumer ba léegi mhm. que ni suñu frère yi dem luñ li mën a def pour indi leen danañ ko def. mais assumer ni ñun dañuy def CEDEAO mais tu vois des gens payés par d'autres pays parce que ñoom ils te parlent d'esclaves mais ils te parlent de la traîtrise du Sénégal mais moment yooyu ñoom d'autres blancs ñoo leen fay pour ñuy salir d'autres mais ñuy salir ay noirs comme ñoom mais non man mënuma comprendre dëkk bu président ba def trente quelques années ak dëkk bu Blaise Compaoré yow nga ni Thomas nga gëm mu mu trahir Thomas def presque vingt huit ans nga bëgg ñëw ñun nga xam ni ci alternance lañ jóge démb non nga ñuy saaga il faut arrêter waaw. on après ñu dellu si waat euh, juste quelque précisions euh, xam nga maa ngi lay laajaat naan la loi de finance.